Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. remix du titre fétiche de Baba Mal, Djamleli, pour lutter contre le coronavirus. L'artiste chanteur s'est mis en collaboration avec euh, le slammer Double Cerveau pour produire ce single afin de sensibiliser les populations et surtout en langue polar. Voici un extrait de Djamleli, version Covid-19. Voici le slammer en double cerveau qui avec Elage euh, Babamal dans un projet qu'il a initié donc euh, pour la lutte contre donc euh, cette euh, maladie qui qui gangrène tout simplement mondiale, qui freine les activités du monde. donc euh, il son morceau fétiche Jam donc euh, en version poulard et en version française. Donc euh, c'est un projet qui va sortir sur oh, cinq versions. Donc il y aura une version aussi en Wolof, et une version en Manding, une version aussi en Serrère. Oui, donc euh, c'est notre contribution en tant qu'artiste, en tant que tout simplement porteur de voix. Donc euh, je pense aussi nous les artistes, euh, nous avons tout simplement un rôle à jouer dans le cadre de la sensibilisation dans le cadre tout simplement des respects qu'on doit tout simplement faire pour freiner cette pandémie. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, le lead vocal a initié tout simplement ce projet pour apporter sa contribution au niveau national et au niveau international. Et puis, en ces temps de coronavirus, les artistes et les écrivains rivalisent d'ardeur et de créativité. C'est ainsi que Koumba Touré, et écrivain, a initié des séances de contes en live à travers sa page Facebook et reprise sur la chaîne YouTube Koumba Touré Africa. waaw amoon na fi. daana am. wax ñu dégg. waxi tey matul a gëm. say waxati raw. Euh, lépp bi euh, du ma ko eggali damay tàmbali rek comme ça ñi ñi ko dégg. bu ñu bëggee dégg li ci des ñu ñu dem YouTube bi. bu euh. turee Africa dinañ dinañ dégg li des ci ñaari féex lañ. féex yi dañu ne dañuy dem dëkk bi ñuy woowee Jakunda. Jakunda nag dëkk dëkk dëkk la. dëkk la boo xam ne dañu ne dëkk bu neex la dëkk bu neex a neex la foofa daal jàmm rek loo bëgg rek danga koy am seex nag manu ak gugu la tudd ñu ànd nag di dem yoon bi nag dafa gudd yoon bi ni mu guddee kenn ki ah, moom ah, lu ko neex rek la xam keneen ki nag moom dafa xaw a yaru d'Afrique histoire pour enfants transmission de savoir éducation et leçons de morale à travers ces contes à multiples facettes dont voici un extrait ceci s'est passé il y a très très très longtemps c'était dans le village de Ndoumbelane le village de tous les animaux il était une fois un joli petit village au bord de la mer où personne n'était jamais mort. En tout cas, personne ne se rappelait de la mort. Nous recevons justement Koumba qui nous parle de l'initiative. Il y a des histoires que, que je crée de toutes pièces et ils sont basés sur, des leçons. de morale, c'est beaucoup autour de la solidarité, autour de la créativité, de l'utilité, euh, d'être des, citoyens autour du respect de la personne humaine. Euh, donc euh, sur cette base-là, euh, je, crée des histoires pour que les enfants euh, apprennent et, grandissent en, respectant certaines des valeurs d'humanité. je dirais. Il y a aussi d'autres histoires que, que, que, que, je connais, que j'ai entendues, avec lesquelles nous avons tous grandi, que je, raconte encore, euh, quelquefois différemment, mais aussi qui portent sur ces, mêmes, sur j'ai repris euh, euh, la logique de Boukilienne, qui, qui, est une histoire un peu drôle, hein, qui Boukilienne qui, qui, crée une rumeur, qui ment, et la rumeur devient tellement grande qu'au bout du compte, elle voit que les gens y croient et elle-même, elle, elle croit à la rumeur qu'elle a créée. Donc, euh, je pense que ça assied bien à, à cette période de, de, fake news où beaucoup de choses sont dites qui ne sont pas vraies. Euh, bon, il y a d'autres histoires euh, comme celle que j'ai écrite sur la mort. Parce que de parler de la mort aux enfants d'une façon qui n'est pas, voilà, apparente ou macabre, mais euh, d'une façon naturelle, mais aussi d'une façon de, parler du respect de la vie. Voilà. Le conte comme moyen, comme véhicule de transmission de savoir et de connaissances, de faire passer du temps, du bon temps à ses enfants pendant ces moments où ils, ne sont pas à l'école. Tout à fait, c'est une façon d'apprendre de façon ludique. Le conte a toujours servi à cela, euh, confinement ou pas. On peut apprendre euh, des, des C'est à travers les contes, les luttes que nous, apprenons tous, hein, Euh, euh, quand on dit les choses directement, elles ne sont pas toujours écoutées, mais quand ça passe par des histoires, Euh, voilà, l'attention est là. Et donc, euh, c'est une façon de, donner d'autres euh, espaces, d'autres possibilités d'éducation, puisque, comme vous dites, les enfants ne sont pas, à l'école, mais euh, nous, avons beaucoup appris avant même l'existence des, écoles, des histoires, des contes et des mythes qui, ont toujours existé. en scène pour présenter ces contes-là, Alors, euh, euh, mise en scène euh, et, et, et habillement, je, je, disais que ce que je porte euh, pour faire les comptes, c'est ce que je porte aussi tous les jours. C'est ce que je porte pour aller au travail, c'est ce que je porte pour aller dans les cérémonies, etc. Cela fait partie de, de, de, de notre esthétique. Autant euh, les contes et cette façon euh, de, de, raconter, de faire passer les valeurs Euh, nous appartiennent, autant aussi ce que, ce que je porte pour, euh, les raconter nous appartient aussi. Euh, et donc, que, nous devons offrir et présenter à, nos enfants et au, reste du monde. Voilà, le, le, rôle réellement des artistes, c'est de faire aimer nos cultures et, nos, savoirs, nos avoirs. Merci beaucoup. Retenez que des contes en version Wolof, Poulard, et même en manding sont à venir. C'est tout pour cette page culture. Merci de l'avoir suivi. dal jàmm ci seen xibaaru mbatiit dal leen ak jàmm seen xibaaru mbatiit Lady ngeen di dégg nii titre bile di boo xam ne ku ko xam rek xam ko ak Baaba Maal mu daal di koy woyaat ngir di si ñaax nit ñi ñu moytu bu baax feebaru coronavirus bile bile yoon nag mu ànd seeg slameur bile di double cerveau nañu déglu tuuti ci Jam Lady version coronavirus. nañu déglu double cerveau mu wax ñu nu mu dundee bi xeetu collaboration. waaw participer naa ci projet El Hadj Baba Maal lead vocal bu Daande Leñul muy projet boo xamante ni dafa war a génne dafa génne sax ay morceaux yoo xamante ni day ñaax di sensibiliser nit ñi ci feebar bii di coronavirus boo xamante ni moo ngi lëmbee àdduna moo ngi moo ngi tamit euh, taxawal ay activité nit ñu bëri. donc euh, ñun en tant que ay artistes tamit mu invité ñu ci ci ci projet boobu man ma participer ci ci version pulaar bi ak version française bi donc dina génn tamit ci génn na tamit ci version séeréer ak euh, ak euh, mandeng ak aussi wolof pour ñëpp jot ci message boobu noonu moo ngi remixé benn morceau bu tudd jam leeli boo xamante ne presque ñëpp xam nañ ko donc ñun artistes yi tamit dañoo war a indi suñu participation suñu contribution ci ci xeex feebar boobu parce que tey jii nii tamit artistes yi yëpp ñoo ngi taxaw mel ni ay ni soldat pour tout simplement jàmmaarloo ak jàngoro jii nii parce que xam naa ni tamit loolu mooy suñu rôle parce que tamit war ñu tout simplement baisser les bras donc loolu moo waral tey ji nii ñu participer ci projet boobu noonu et puis aussi ñoo ngi continuer suñuy activité di jéem a xool encore yan plan d'action la ñu mën a teg pour que sensibilisation bi gën a yaatu. lépp ci jamono ji nga xam ne lépp ci askan wi dañoo tëggu seen kër ngir gunge xale yi xamal leen nit seen cosaan ak seen mbatit ki nga xam ne moo di bindkat bile di léppkat bile di Coumba Touré mi ngi koy def ci internet bi looloo tax fan yi yëpp muy posté te ay vidéo ci page Facebook am ak ci YouTube Coumba Touré ay xeetu lépp yoo xam ne da ci gunge xale yi di leen ci xamal démb Afrique di leen ci nettali ay taarix ak di leen ci leeral lu bëri ci wàllu mbatitu Afrique ak it fu ñu jógee ci ki it di leen ci jàngal ak di leen ci yee ci wàllu jikko nañu déglu lenn ci léeb yooyu lee waaw dama naan léeboon nga ni lippoon lippoon amoon na fi daana am ba mu amee yaa fekkee yaa wax ñu dégg waxi tey matu la say waxa ci raw. léeb euh, bi du ma ko eggali damay tàmbali rek comme saa ñi ñi ko dégg bu ñu bëggee dégg li ci des ñu ñu dem YouTube bi. Eh. Coumba Touré Africa dinañ dinañ dégg ñaari féex lañ. féex yi dañu ne dañuy dem dëkk bi ñuy woowee Jakunda Jakunda nag dëkk dëkk dëkk la. dëkk la boo xam ne dañu ne dëkk bu neex la dëkk bu neex a neex la foofa daal jàmm rek loo bëgg rek danga koy am séex yi nag manu ak gugu la tudd ñu ànd nag di dem yoon bi nag dafa gudd yoon bi ni mu guddee kenn ki ah, moom ah, lu ko neex rek la xam keneen ki nag moom dafa xaw a yaru falaa yem ci léeb bi du ma wax li ci def moom la sax di Coumba lañuy dalal tey ci suñu ganu xibaar léeb bi ci ci jàngale la bokk ah, ndax ci léeb bi mën nga ci jàllale ay xalaat mën nga ci jàllale ay jàng Euh, loolu moo tax ñu ñu di ko def euh, ma ma ma tàmbali woon di ko di ko may euh, enseignants yeeg parents yi gis ni nit ñi sawar ci lool ah ma ne kon naa continuer di ko def di di di di di di def ko séance vidéo wala enregistré ko yónnee ko nit ñi mën ko déglu xale yi mën ko déglu mën ci am lu ñuy jàng mu aussi mu nekk loo xam ne tamit mën nañ ko def ci temps ah, yi nga xam ne ah, ñu ci bari bon ñoom ñëpp ah, jàngiwuñu ñu ñu ngi ci kër yi la nañu tamit euh, loo xam ni dina leen dina leen yee euh, mën nañ ko déglu am ci am ci bànneex mais aussi am ci jaax euh, xeetu lépp yi ngay léebal léeb yu yàgg yi la suñuy léebal suñu jamono yu maam yi la wala am na ay léeb yoo xam ne koy fent nooy fooy génnee léeb yi nga léebal ñaar la am na léeb yoo xam ni maa koy fent waaye loo fent fent am na fu mu jóge xalaat bi benn la bëgg yar xale yi ci bëggante am respect ci ci ci doomu doomu aadama moo tax ñu di ko ñu di ko fenn dañ ko dégg fii lañ ko fekk yooyu tamit dañ koy dañ koy léebaat Euh, wan ko xale yi parce que ñu bari ci ñoom léeg-léeg duñu dootuñu dégg yooyu yooyu lépp. njëriñ ak taxawaayu lépp euh, lan mooy placeu lépp euh, ci sa xalaat yow jamono ji nga xam ne xale yi war nañ ko mën a sukkandiku ci wàll woowu ngir gën a xam ñooy kan ak ci seen wàllu histoire u démb ak ñu mel. xëy rek lépp pour jàng la. dëgg la ki koy déglu dina ko ne xale yi bëgg nañ ko dañ ci kontaan waaye ci biir. lépp boobu mën nga ci jàllale ay xalaat mën nga ci jàllale ay jàng yoo xam ne xëy na boo tëboon tëb rek wax ko euh, xëy na duñ duñ ko déglu wala duñ ko gisee noonu lépp euh, pour lu am solo la du du ay du ay fo rek ndax euh, mën na mën na mën na doon loo xam ni réellement dañ ci jàng donc xale yi tey bu fekkee ni école bi demewul ni mu war a demee Ah, jàng tamit xam nañ ni du du du du école rek lañ koy defee ah, bari na classe yoo xam ne mën nga ci na noo xam ne mën jàngee xale yi ñu nekkee ci biir kër ah, ñuy def ci biir kër mën nañ ci jël ay ay ay jàng te lépp ci loolu la bokk ci def. lu tax justement nga xalaat ne port vestimentaire bi ak li ngay wane da si am solo ci wàllu lépp bi. du du ci léeb bi rek. dem li ñuy sol muy suñu yére loolu moom ah wax dëgg yàlla euh, ñuy léeb léebu ñu dañ koy sol man li may li sol di yëpp euh, ñeme naa koo sol génn ñeme naa koo sol dem dem liggéey ñeme naa koo sol euh, génn dëkk bi te taxaw fu ma neex parce que ñun dañu am yu baax ni lépp nekkee suñu suñu patrimoine nekk loo xam ni mën nañ ko utiliser ci suñu colin tamit ah, dañu dañu dañu bari ay bagages yoo xam ni Euh, dañ ko war a wane. Mhm. Euh, donc loolu moo tax euh, bu may lépp tamit may sol li nga xam ne moom moom laa yaakaar ni rafet na. Mhm. ndax ci ñun la jóge ñoo ko defar. jàpp leen ne lu jël léeb yi lee ci làmmiñu tubaab mi ngi waaj a def yeneen i léeb yoo xam ne ci làmmiñu wolof lay doon anglais alpulaar ak sax mandeng fii la ñu ndarkeppee seen xibaaru mbatit jërë ngeen jëf ci déglu bi.